rek incha allah dinañ leen ko dégtal en direct ak sunuy naataango yu ñu fa toogal major Kandji fekkee yemb na major maa lay nuyu. allo major. major Kandji. waaw Amadou jaw dañuy dañuy wëyal euh, démb arrestation bi am na mm-hmm. leneen lu nga xamante ne nag ñii di avocat yi ñu ngi koy daal di lëmbat jàpp ne ab prétexte dong la woon mel ne euh, ñi nga xam ne nag ñoo ŋànk euh, mm-hmm. sunu maanaam sunu kilifa yi dañ ñoo bugg dañ ñoo cee laxas lenn loo xamante ne dafa mel ne am na lu ñu ciy nëbb mm-hmm. maanaam daal dafa fekk ne peut-être du ñàkk ne leneen la ñu bëggoon mais arrestation bi daal daanaka parce que raison yi ñu joxe nag ñu bëri nee nañ dafa dafa xaw a simple dafa xaw a tuuti trop e-, e-, effectivement xam nga ku mel ni Ousmane Sonko mun nga ko jiiñ appel à l'insurrection askan wi d'accord ci ndax euh, yàgg na euh, daal di woo ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ay militant am waaye it ay euh, ndawam su fekkee ni dafa am ku nekk ci ligne bi xawaa ma non mën nañu mën nañu wéyal mën nañu wéyal mhm. major mhm. major yembagul yembagul voilà donc juste pour wax ne ni askan wi beneen mbetteel la ñu am maanaam surprise bu ñu ne ku dayoo ku mel ni Ousmane Sonko peut-être qualification geste bi nga xamante ni Ousmane Sonko def na ko Euh, ñu ngi doon xaar ñu ni outrage à agent maanaam da nga daal di jàppante ak alkaati jàppante ak kilifa bi nga xamante ni mu ngi nekk ci exercice fonction yam parce que procureur dafa ni ndaw si dafa paan ci buntu kër Ousmane Sonko donc certainement ku paan ci buntu kër Ousmane Sonko. xawma ak génnee téléphone di filmer dafa doon li nga xamante ni nag dafa xaw wute lool. waaye xëy na procureur peut-être information. dafa mel am na ku nekk ci ligne bi. Euh, major allo major. bisimilah major dalal ak jàmm ci suñu édition bi nga xam ne dañ ko jagleel ak li xew-xew yi am démb muy arrestation kii di euh, njiitalu parti bi di Pastef Ousmane Sonko ñu bëggoon cee am rek sa commentaire. voilà sama commentaire lan la donc euh, <clears throat> léegi hier ce qu'il a fait c'est irresponsable parce que en connaissance de cause d'un agent de la sécurité publique qui fait le renseignement. même s'il ne faisait pas de renseignement, mais qui fait le renseignement d'ailleurs et qui est un agent des renseignements généraux, voire de la gendarmerie comme de la police. En tant que leader politique, il devait savoir que ces gens-là, quand vous êtes leader politique, vous êtes surveillé dans vos mouvements et dans tout ce que vous faites. Parce que ça entre dans la sécurité et de la sûreté de l'État. Et que dès lors qu'il a su que c'était euh, gendarme, mm -hmm. parce l'a su, c'est pour cela parce qu'il est photographié à tout bout de chemin. Il est photographié à tout bout de chemin. Il est suivi à tout bout de chemin par des journalistes et par des, des militants à lui qui le photographient et qui le filment. Hein, et que quand il a su que c'était un gendarme, un agent des services de renseignement, sans galanterie, il s'est permis quand même, parce qu'étant une femme même de surcroît, et sans galanterie, il s'est permis de, de s'attaquer à cette dame, de saisir son portable et d'aller dans, dans son domicile e au lieu de s'abstenir à ça, sachant bien qu'il a fait une faute grave et que les fautes de sécurité vont suivre, il, fait appel à, à, un soulèvement encore comme d'habitude. Déjà, c'est une violence basée sur le genre. Parce que si ce n'était pas une femme, il ne pas fait. Parce si c'est un homme, il ne pas le faire parce l'homme allait se défendre. Euh, Major, là, vous confirmez que là, vous êtes en train de dire qu'il y a eu des, des violences sur cette dame. C'est l'arrachement, le D'accord. Mais du vol à l'arraché, quelqu'un qui tient un objet et vous l'arrachez. Maître ñu ñu wax wolof maître euh, ma la maître sax major major mm. Kandji. oui mane waa waaw. Ah, boo boo nit bu yoree dara alalam. nga nga foqarti ko c'est de la violence. exactement. et c'est du vol. le vol c'est la soustraction frauduleuse bi bien appartenant à autrui. mooy nga jël alal joo xam ne keneen la ko moom contre son gré. te législateur bi dafa continuer ba ne y a la prise manuelle et le déplacement moom def na prise manuelle bi c'est-à-dire le fait de foqar ci bi mooy prise manuelle bi muy condition première condition beneen condition bi def euh, mooy mooy euh, déplacé na bien bi dugg ci këram donc il ne il faut pas qu'on nous qu'on nous divertisse les avocats qui sont en train de nous divertir c'est du vol parce que c'est de la prise manuelle et, et un déplacement en mais ma major est-ce que est-ce que tamit nga jégal dans des termes de l'article 370 et suivant, c'est du vol. Mhm. Major... Appel à instruction, mhm. Et il a bien écrit, il a arraché, mhm. et il s'est déplacé chez lui, et, et qu'il a appelé aux gens à se soulever. Il faut que ça cesse avec ce monsieur-là. Major. On ne peut de la politique dans un État et prétendre ëllëg euh, nga bëgg a yilif réew te ba pare yow ngay weddi luy loi di def ay hors la loi di def cumul d'infraction mmh. concours d'infraction mmh. et puis bu ñu waxee ay nit génn di lakk ay station di lakk ay bien jàmbur. mais Major li mu def moom il a atteint le Rubicon. Major Kandji gën a garaaw parce que dafa appelé à l'insurrection suivie des faits ci guddi gi gars yi génn nañ lakk nañ ay station et autres nous encourageons les magistrats et autres de faire mhm. le travail et de de de retenir l'infraction euh, appel à insurrection à insurrection suivi d'effet c'est suivi d'effet donc toutes les conséquences responsabilités am la et que ce monsieur là doit faire l'objet d'une sanction exemplaire bu mhm. réew mi naan day tàkk ak mais ce n'est pas notre problème major Kandji l'essentiel que force à la loi allô major waaye waay euh, man li may laaj mooy euh, wax nga ni li nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko geste bu mu def kenn nawlawu ko waaye man euh, damay laaj ni ndax législation Sénégal tamit encadré wul maanaam nga fekk nit mu taxaw wala fekk nit muy dem. jël ay image ndax loolu tamit. filmer nit ki à son insu ndax loolu tamit yoon la. non non non loolu c'est la la c'est vous savez les gendarmes sont et les par les bu ngeen demul dans les causes objectives de non imputabilité les les juristes là qui parlent s'ils ont s'ils ont ils ont appris droit xam nañ li ñuy wax l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime rend l'acte licite et conforme de droit les forces de sécurité comme euh, les FDI la CIA euh, les les Interpol les gendarmes dans leur local ils font des observations des surveillances des filatures maître ci wolof maître ci wolof ma ne ma ne mhm. ñoom dafa am législation bi ñu defee droit bi ba pare dans mhm. le code pénal mhm. in fine dans les dañoo bind ce qu'on appelle les les causes de non imputabilité dafa am la démence et les causes de non imputabilité la démence moom la ñuy wax ay causes subjectives de non imputabilité mais eh gendarme ak policier dañu am cause de non imputabilité qui rend l'acte licite et conforme du droit parce que autorisé par la loi et commandé par l'autorité légitime c'est-à-dire les gendarmes et les policiers ils les politiciens Il surveille même le président de la République dans ses relations, les gens qui le fréquentent, les gens qui, qui, qui l'approchent, les gens qui viennent euh, c est, euh, c est euh, infiltrer les ministères. Major. Pour ne pas avoir, pour Major. xam nga xam nga keroog kii di Abdou Karim Fofana yor kàddu gouvernement bi nee nañu li tax ñu levee barrière moom blocus kër Ousmane Sonko c'est parce que appel à l'instruction bu mu doon def jamono ji mun nañu wax ni euh, jàmm daal di fa delluwaat ay fan rek maanaam ñetti fan wala ñeenti fan ñu gisaat euh, euh, takk der ñëw ba ci buntu kër Ousmane Sonko daal di fa paan jéem koo filmer ndax loolu nekkul ñaari kàddu yu wéroo ci diggante procureur ak ki yor kàddu gouvernement bi. mais ñun fu ba tey bu le le problème le danger qui est au Sénégal c'est parce que ñun sénégalais yi xamuñu si comment un état fonctionne mais yow Ousmane Sonko de par son compte des précédents et autres mais Ousmane son environnement doit être surveillé pour que état du am benn mbetteel mais keroog le 23 xaw ma date bi bi ñuy lakk dëkk bi di dégradé terre yi ak yooyu lan la nit ñi wax on a gâté tout ce que le pays a investi pendant trois ans koo xam ne à cause de lui la ñuy yàqe loolu kenn du ko surveiller mais lui là il n'est pas responsable s'il était un responsable jamais il doit attaquer une force de une force un élément des forces de la buy def renseignement Abdoulaye Wade daan wax gars yi maa ngi dem dama damay génn telle heure laay génn telle heure laay ñëw parce que y avait un dispositif bu nekk ci wetu këram pour xool tous les mouvements mais kii il faut être un homme d'État kii bu nekkoon état comment lay surveiller territoire national bi bu dee délinquant boo gis wala nit koo gis boo ko surveiller wala nga def ci moom renseignement soo ñëwee c'est illégal. maître maître Kandji ñu lay ñu lay jaajëfal lu euh, bari ci éclairage yi nga xam ne jot nga koo indi. Euh, même su dee nag euh, yàgg sunu naataango bi <laughs> Amadou Diaw xam naa ne laajam bu mujj bi mu doon jëm. Mm-hmm. ci wàllu droit à l'image ñàkk ñu gën koo yaatal di mm-hmm. xamle rek ne ñi nga xam ne ca tribunal bu Dakar foofu Abdoulaye Mal ak ñuy xamal ne ñii di pôle avocat wu Ousmane Sonko ginnaaw ba ñu sàkkoon ak ñoom itam ñu yëkkati ci seeni i kaddu dañ ñoo jox dig daje ci kanam maanaam bu mm-hmm. procureur addoo ba pare ñoom itam mm-hmm. dinañ addu euh, indi ay leeral ci euh, mbir yi Amadou Dia wax ak askan wi mm-hmm. voilà euh, merci beaucoup donc di jaajëfal major Kandji ci éclairage yi nga xamante ni daal dina ko indi ndax moom ancien investigateur la maanaam képp ku xam major Kandji xam nañ ni ku maîtriser li nga xamante ni moom moo di enquête waaye Euh, du tax ñun tamit ñu daal di ko euh, comme euh, li nga xamante ni daal dina ëlëm xelu askan yu bëri mooy li nga wax léegi-léegi xawaa le droit à l'image mm. ndax fekk nit ki muy dox wala muy taxaw nga daal di ko filme wala bëgg ko foto fekk àndul ak sagom moom mm. jàpp naa ni yoon de ko encadrer peut-être bu ñu amee réaction yeneen juriste yi mm-hmm. nekk ci diggante ki nga xamante ni moom moo di jigéen Diouf ak Fatima dinañ daal di leeral par rapport ak boobu maa ngi doon wax ni tamit Abdou Karim Fofana keroog mu ngi doon àddu ni li tax ñu lever blocus euh, kër moom Ousmane Sonko c'est parce que euh, fitna bi nga xamante ni da ko doon woote jamono ji jàmm daal dina fa dellu waaye it euh, li ëlëm xelu askan wi mooy ana lan moo tax ba léegi Euh, ñii di euh, renseignements généraux wala ñii di gendarme yi ba léegi ñu ngi topp ki nga xamante ni moom moo di euh, Ousmane Sonko ci këram ba fitna daal di fa jib ni ki démb ba ñu placé ko ci lii du garde mhm. déclaration bi nga xam ne jot nañ koo dégg ci avocat yi Ousmane Sonko yi dafa mel ne xaw nañoo am tuuti mbetteel nag ci mhm. fanaanam mhm. fële ci tribunal bi parce que ñu bëri yaakaaroon nañ ne buñ ko entendre dina daal di ñibbi këram Amadou Diaw nga yaakaar ne garde à vue bi kañ la war a mën a jeex Euh, normalement bu fekkee ni euh, xam nga vendredi lañ ko jàpp te ñu ngi jëm lii di weekend euh, certainement dina fa daal di passer la nuit lu toll ci 48 heures maanaam ñaari fan ñaari fan yooyu nag bu ñu appee mun na am renouvellement maanaam mun nañ ko renouveler waaye ginnaaw loolu ki nga xamante ni moom moo di procureur de la république su ko neexee jamono ji Euh, bu fekkee ni dafa jàpp mbir mi lii di flagrant délit la maanaam loxo ci poste la ñu jàpp ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko muy sàcc lii di téléphone. ak mhm. euh, appel à l' maanaam mu mhm. woote fitna mun nañ ko euh, mhm. àtte ci tribunal des flagrants délits de Dakar waaye su fekkee ni nag dafa laaj ñu gën a xóoteel li nga xamante ni moom moo di enquête bi ndax bu ñu fàtte ni jamono ji ci enquête préliminaire la